xam na ne campagne bi dafa am solo lool ñu war ci am taxawaay mais war ci wane gis-gis bu rafet boo xamante ni tey ku ko gis kontaan mu ngi liggéey lu am solo ci benn bokk yaakaar ñu aussi ñu ngi jéem waaye di yi ci bokk yépp que ñu la maire bi mu ñu dem waxtaan campagne bi kat suñu campagne la du campagne président Macky saa du campagne Amadou Ba mais ñun ñi suñu campagne la parce que lu tax suñu campagne la président Macky ku nekk xam na li mu def ci département kon bu tegee Amadou baax jàpp nañ ne la président defoon mu gën a baax bu ñëwee da koy yow waaye lépp loo xamante ni yéexoon la bu ñëwee da koy gaawal kon ñu ngi woon ñëpp te xam ne fal président Amadou Ba farata la ci ñun waa département bu Koungheul parce que nag yoon yaa ngi fi ñu commencé te yeggul électrification bi doyul ndox bi wax dëgg yàlla des na te yooyu yëpp bokk na ci programme yi nga xamante ni président Macky Sall na ko ci programme am eh, baa war ko yeggale kon maire maa ngi lay remercier bu baax ci liggéey bi ku ci nekk bu defee nii foog naa ne ndam am na te am na njort bu baax kene incha allah ndam dina am parce que même bu nekkul président Macky Sall bu nekkul président Amadou Ba même bu nekkul projet yi nga xamante ni dig nañ ñu ko liggéeyam waaye suñu liggéey ak suñu taxawaay ak suñu bëgg Koungheul ñun ñëpp bu ñu ko boolee incha allah dinañ am comme j'ai dëgg sànq euh, man ak moom benn xaar ma yàlla politique moo nekk loo xam ne rek des fois nit ñi wax wala peut-être intention yoo xam ne amuloo ko euh, mais entre man ak moom jàmm rek moo fi mun a nekk cofeel rek moo fi mun nekk leneen bu mënu fi nekk donc ma ñëwoon seet si ko euh, feddali sama mageel ci moom sàkku ci moom it ñu ànd nekk benn kon na waa Koungheul yëpp xam ne bis mi ci tey ma ak honorable Fanta Sall nekk nañ benn pour la cause de l' intérêt général dinañ ànd xàccandoor dóorandoor ngir amalu Ba mun a am pal boo xam ne dañ ko naatale ci département honorable maa ngi lay gërëm di la sant ci nangu bi nga nangu ñu ànd jàppalante liggéeyal président defe naa ne loolu rek mooy li am solo tey opposition man ak yow opposition ak kon bis ni ki tey nañu xam ne nekk nañ benn pour l' intérêt général et incha allahu rabi dinañ jàppalante te ci biir campagne bi nit ñi dinañ gis équipe soudée boo xamante ni kenn du taxawati ne Benno Bokk Yaakaar ànd bis bi tey c' est l'union qui va nous faire franchir la barrière ultime mhm. qui va nous faire gagner brio incha allah ce jour électoral tant important au soir du 24 mars mhm. jërëjëf ci sa taxawaay ci sa liggéey bu rafet ci biir département bu Benno Bokk Yaakaar existé fii mm-hmm. yàlla ak sa jëmm ak sama jëmm la mm-hmm. parce que ñun ñoo koy jëmmal ñun ñoo koy jox contenu ñoo koy animé ci biir département wu mm-hmm. kon suñu àndee mun na dalal xelu militant yi mun na dalal aussi xelu candidat bi Amadou Ba mais aussi rawatina président bi la vraiment jërëjëf ensemble pour